mooy tere bi bëggal sama askan plateforme bi taxaw ak le grand champion Pape Malick Gueye borom bergerie Khalifa Malick Pape Malick Ladoum TV nuyu na la. waaw Sénalune ñu ngi leen di ziar di ziar waa Ladoum TV yëpp eh, ak eh, membre yu mu àndal yëpp ñëw fii ci foire Tivaouane bu tey ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen tatagal di leen wax ndal leen ak jàmm di kontaan si seen ñëw fii macha allah am na solo. Eh, macha allah li ñu lay a laaj mooy dañu laa fekk foire Thiès ngeen di fa ay xar doy waar jóge Thiès même pas deux semaines fii tey Tivaouane déplacement boobu lan waaw macha allah comme na ma ko waxee woon bu njëkk ba rek euh, bi may jógee Tivaouane di dem Thiès euh, association bi ñoo ma yabaloon euh, ma dem exposé fa deux semaines après ñu ñëw Tivaouane fi nga xam ne nag suñu foir la ñun suñu foiru association ñu ñëw jëmbal pour jëmbal suñu association ak suñu foiru dëkk moo tax ñu ñëwaat fii quoi waaw. macha allah mu nekk lu am solo nga ñëw seet Thiès kuuxal leen am loo fii Tivaouane indi fi ay produits yu exceptionnels lan moo waral loolu. waaw mais nekk tout tànk di liggéey rek waaw nekk tout tànk di liggéey topp suñu ginnaaw grand yi rek eh, waaw eh, topp seen ginnaaw di liggéey te am élevage bi moom dañuy wax ni dëkkul fenn waaw li ci am solo mooy patience bi rek waaw amal yoral li nga yor toppatoo leen ni ngi leen war a toppatoowee rek eh, incha allah bu yàggee defe naa njëriñ war na cee feeñ quoi ci loolu la nekk nag yaakaar ni xar yi ñu fi andi buñ ko exposé dina neex visiteurs yi. waaw am nañ ci yaakaar daal waaw. macha allah mu nekk lu am solo tey de muy lu wér ndax ku fi gis xar yi nga xam ne indi nga ko fi nekk xar yu rafet macha allah ñu gis euh, teewoon toog na deux ans foiru ren mu ñëw indi ay xar yu rafet box boo dugg tey gis fa xaru exceptionnel organisation bi macha allah lan moo leen may loolu organisation bi. waaw loolu li ko waral mooy deux ans yi nga wax ne toog nañ ko foiruñu parce que dañu woon dañuy foiraat ñu ni no nan toog xaar deux ans suñu xar yi màgg aussi ñu gën a am expérience tamit comme éleveurs yi dugg ci euh, milieu laadum bi bëri bëreeguñu fii ci Tivaouane kon yoon la ñu may ñu liggéey benn laps de temps pour bu ñu ñëwee ñu mën a xam ni ñii kat liggéey nañ loolu moo ñu may euh, daanaka lii. Euh, ñuy dem ci foire yi tamit di defi visite amaale expérience tuuti boo xam ne du ma ni sax am nañ ko mais ñoo ñoo ngi ci yoon bi di jàng euh, ba tey lii ñu def ci wàllu organisation xam nga ak xar yi nga xam ni ñi fi ñëwoon daawaat ci géej wala première année yi ak xar yi ren yi nii bokkuñu quoi. waaw changement bu mag am na ci waaw mais ba tey nag pareeguñu ñu ngi nekk ci yoon lañu nekk nii rek waaw comme comme liggéey bi moom amélioration la amul fu mu yem chaque jour rek war nañoo mën di gën di yokku niveau euh, pour ak au niveau quoi waaw. macha allah ñu des si amélioration boobu gis nga indi mal bu exceptionnel muy Tidiane di doomu Oscar tey lan nga ñu mën a wax tey ci Tidiane. waaw Tidiane macha allah Tidiane xëy na wax ci moom sax eh, day xaw a jafe ci man waaw danoo am yaakaar rek waaw dugal ko. waaw am yaakaar rek leen am dugal ko euh, te commencé nañu di ñu defal ay production yoo xam ni dal na suñu xel waaw dal na suñu. macha allah ci yaakaar boobu te yaakaar bi ci fan nga teg fa man ko teg maanaam ban yaakaar ci wàllu maturation wala ban ban fànn daal waaw ci yaakaar bi ma ko yaakaar ni mooy xam nga xar moom. melokaan bi eh, mën naa wax ni phénotype bi mën nañ koo gis nii rek mais li ne li mu làngoo ci biir man foofu laa am yaakaar. ci deret bi parce que première production yi mu def waaw moo gis naa ni xam nga buñ ci téewee liggéey ko te comme xale la euh, le 12 janvier bi la am 24 mois euh, demagul fen tolloogul day toll ci commencé màgg euh, ak tamit production yi mu commencé defal tamit macha allah am nañ ci yaakaar daal waaw ci li ma gën a gëm ci moom daal mooy production bi muy def waaw production bi. macha allah parole d'un expert parce que man tey Tidiane moo ko doon jël dama koy jël ci phénotype maanaam ci mensuration ci phénotype li may gis mais yow nag dama ko jël ci ci deret kon loolu moo la may wane ni grand éleveur nga ba léegi balaa ñuy dañuy bàyyi rek nga tàggoo dinaa waxtu wi xat na ñu bàyyi la rek nga wax sa kàddu yu mujj. waaw macha allah di leen jaajëfal comme ni ma ko waxee woon rek yéen yéen a ngi yokk élevage waaw ndax lii nii yombul waaw toog sa kër ñëpp di la seetaan ñëpp xam la. Euh, ngeen ñëw def ko euh, di jaajëfal bu baax nag euh, sama waa ji waaw borom borom añ bu neex bi <laughs> ndax xam naa ne lépp moom la mais am na keneen ku nekk ci ginnaawam tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla rek. Eh, yàlla yàlla gën a barke liggéey bi yàlla gën a sàmm leen sàmm njaboot gi eh, di wax seen liggéey fi ngeen ko teg foofu la yàlla na yàlla def ba nekk ay télévision yu mag a mag a mag di la jaajëfal yow Seydina Aliou ndax fu ñu mën a dem rek fekk nga ñu fa eh, di la jaajëfal bu baax di la kontaane daal waaw di jaajëfal ñëpp nii foire bi daal ni muy commencé déroulé nii moom macha allah dal na xel. am nañ ci yaakaar ba nga xam ne daal euh, ku fi ñëw di nga gis xar yu rafet euh, di nga gis euh, exposition yu rafet tamit di ñaan yàlla rek chaque année muy gën a yokk daal waaw di jaajëfal ñëpp di leen kontaane jaajëf ñëw fii ci bergerie du derviche fekk fi le grand champion fas yéene sekk ak moom waxtaan mu ndaw salaamaaleykum champion. maaleykum salaam sëñ sëñ bi noonu naa maa ngi lay maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccaay yéen waa télé TV vraiment télé bi moom am na fi njariñ quoi ndax vraiment bu xar feeñee ñoo ma tax bu télé e, e, e, bi feeñee yéen a tax kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. macha allah est-ce que mën nañ xam tey lu waraloon sa présence fii ci Tivaouane lan moo waral exposition bi tey. waaw exposition dafa nekk loo xam ne mënut a ñàkk ndax xam nga xaat moom boo ci dugg daa nekk loo xam ne mënut a ñàkk dama naan kees ñëwaat Tivaouane Tivaouane nag dañ fi ñëw nag pour présenter nii rek. lan moo waral ngeen di wër foire. li waral ñuy wër foire mooy da ngay ñëw xool li nga manqué li nga xam ne da nga kaa manqué ak li nga xam ne amoo ko. am na ñeneen ñi ko yor su ko defee nga mu mën koo gis liggéeyaat. daal maanaam su ma la déggee foire daa mel ni jàngal jàng. effectivement jàngal la waaw. tey bi nga ñëwee foire gis exposition bi gis sujet yi nga moom lañ fi exposé tey euh, ban jàngat nga am ci exposition Tivaouane. waaw jàngat bi ma ci gis gis naa ci avancement bu baax ndax vraiment élevé moom mu ngi avancé bu baax a baax ndax fii boo boo soo fi gisee gaa yi. ñi nga xam ne dañ tey euh, opposé dañ ciy seen ay xar yu baax sax danga fi lii moom bu ci gouvernement bi jàppee man am naa yaakaar ne jéggaani moom dana fi jeex. macha allah ñu gis gars yi daanaka exposition yi box boo da nga fay gis ñu indi maal bu mag ak ay famille grande famille yow nga ñëw indi ay tëng ak ay jeune maal lan moo waral loolu. waaw mais loolu la ko waral mooy comme li ma la wax léegi rek waaw maam ñëwuñu pour jongante quoi waaw ñëwuñu pour jongante day ñëw rek nii rek pour euh, opposé wu quoi voilà pour am loolu loo xam ne dañ koy jàng. macha allah xam naa ñu bàyyi la nga présenté ñu journal bi nga xam ne moom nga indi tey moo moo tudd Dame Fall jugee Kees baam tudd euh, euh, euh, Derfis waaw incha allah. macha allah xam naa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo fàttali ñu maanaam bergerie bi fan la nekk si Thiès. bergerie mu ngi nekk Kees nekk Grand Kees fa lañ dëkkee soriwul en face tali bi. fa la nekkee quoi incha allah. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di vraiment di rafetlu si seen liggéey liggéey bi rafet na trop lii moom buy continuer wax naa ni moom jële bi moom mën naa ñëwaat si sa kanamam. merci. Ladoum ba léegi ñu ngi fii ci foire Rap ñëw ci boxe un grand champion muy boxe Demba Gaye tout tànk wala mag tànk borom bergerie Serigne Babacar Sy mu indi fi nag un grand champion muy le champion en titre technopole tey Abdou Souleye indi ko mu nekk lu lu doy waar macha allah euh, Abdou Souleye ñu ngi leen nuyu. salaamaaleykum euh, ñoo ngi leen di fay Seydina Alioune bokk Ladoum TV ñoo ngi leen di béggewaat di leen ziar bu baax a baax a baax gis nañ seen taxawaay am na solo kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax. ñu ñëw fii tey ci foire Tivaouane fekk la nga ñëw indi technopole ak njabootam tey noo jàngatee foire Tivaouane bi. waaw sëñ Alioune euh, macha allah foire bi am na solo foire bi neex na am na ambiance waaw c'est bien organisé gars yi ni ñu defaree seen euh, box yi am na solo rafet na trop trop trop trop macha allah organisation bi jaar na yoon macha allah nickel daal. macha allah. Euh, macha allah ñu laaj la tuuti rek ci maanaam collaboration bi nga xam ni euh, bergerie Serigne Babacar Sy bu dem kay am na ko ak waa Reptel lan moo lan moo waral collaboration boobu. waa xam nga tey euh, Baye Demba maanaam dafa doon nit koo xamante ne si nit ku ñàkk ki ñaan la jël ñëpp uuf ñëpp njaboote ñëpp xam nga jël Tiwaawoon nag bokk ci moom bon boobu mu taxit mu jël waa Reptel tamit. uuf leen ànd ak ñoom tey jii bu ñu demee ba waa Reptel euh, woo Baye Demba ne ko invité nañ la ci foir bi rek kon waa baay dem Demba am na lu mu représenté fii ci biir Tivaouane particulièrement fii ci euh, groupement Reptel bi macha allah. macha allah ba léegi ñu des si exposition bi nga ñëw indi technopole indi cooya indi ami limin ak ay tëng euh, tey ñu gis technopole mu nekk ci état doy waar ndax technopole day ñëw pour confirmer le champion bi nga xam ne moom la jëlee woon fii wala technopole dafa ñëw rek pour delloo kii couronne bi. waaw macha allah technopole ku ko gis xam ni c'est un grand champion mi ngi nekk ci état wu normal mais tamit euh, dañu ñëw uniquement pour invité pour l'instant jëlaguñu benn décision pour ndax dañ koy dugal concours wala dugaluñu ko ndax tamit euh, dafa ñëw dëkku jàmbur daaw mu ñëw fi def fi lu kenn deful ren tamit bu ñëwee yaakaar naa dafa war a ñëw rek. jël titre bi teg ko jox ko gaay ne leen séddoo leen ko xool naka la ñuy demee ndax euh, gis naa ni te dañu war a liggéey te liggéey nañu te tamit euh, champion bi génnee si biir dëkk bi tamit bon man sama gis-gis am na ci solo waaw ñu naan euh, ana champion Tivaouane ñu ne mi ngi dakaar waaw loolu moom man gisuma mu doon lu nice daal waaw dama buggoon rek xam nga Technopole ñëw pour l'instant xam nga jël titre bi jox ko gars yi tegal leen ko xam nga gars yi jongante seen biir daal jërëjëf. macha allah suur ba léegi dañu des si Technopole Technopole dafa nekk xar boo xam ne dafa constat Technopole fu ñu nee foire rek automatiquement mun naa déplacé wu dem loolu lan moo ko waral ci giir gi mu bokk la. wala ci entretien bi. waaw ci entretien bi la ci entretien bi la ndax technopole tey jii boo ko génne woon boo ko yóbbu woon Tamba bu topp la te macha allah dafay adapté fu mu dem day bokk fu mu dem day nekk xam mu nekk xar boo xamante ni si xar bu neex a dëkkal la xar bu ñëpp bëgg la waaw ndax euh, miin na loxo. maanaam daal lewet na lewet bi nga xamante ni si macha allah ñëpp sopp nañ ko ci kontaan nañu ci Technopole bu baax. est-ce que du loolu moo tax kon ay doomam duñ des ci bergerie ba ndax dégg naa borom rek. no ay doom ñoo taxaw ay ru ñoo taxaw ndax doom yëpp comme moom la ñu mel ah, miin nañu loxo lewet nañu xama am nañu yar maanaam ni ñu dañ leen yar comme ni nga ni njaboot di yaree ay doomam bon noonu la Baye Demba yaree technopole ba ay njabootam sax dañoo yaru macha allah technopole daal bon mi ngi noonu rek ay doomam kenn du taxaw quoi kenn du taxaw macha allah. macha allah xam naa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ko. waaw jërëjëf euh, mbokk Ladoum TV waaw ñoo ngi leen yi béggee waat di leen ziar gis nañ seen taxawaay rafet na fi ngeen ko teg moom macha allah am na solo di leen ñaanal rek yokkute ca kaw ca kanam jërëjëf waa ba léegi rek euh, mbokk yi ñun ak génn ba léegi fii ci Foire Reptel euh, fekk fii un grand champion fii ci bergerie Maam Soxna Tine euh, salaamaaleykum champion. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj lan moo war a tey sa exposition fii ci Foire Tivaouane bi. ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonente bi maa ngi tudd Bassirou Tine de élevé dëkk bu ñuy naan xàq waaw plus précisément département de Pambal waaw bii mooy sama première foire. li ko waral mooy comme ndaw laa bu dugg ci élevage yàggul dama ñëw ren ne naa ñëw daal natt sama bopp xool ci sama élevage lan moo ma dese lu may yokk lu may wàññi waaw loolu ma gën a tax a dugg ci élevage daal. ñaata at nga def ci élevage. man def naa ci quatre ans. quatre ans quatre ans nga indi exceptionnel yow est que li nga ci def ëppul quatre ans non non defuma ci lu ëpp quatre ans waaw ndax 2014 laa ci dugg waaw waaw 2014 laa ci dugg. macha allah mu nekk lu am solo tey sa première exposition nga ñëw gis waa teewaat nañu exposé nan nga jàngate exposition boobu. waaw rafetlu affaire bi rek waa di wax ni am na amélioration ndax. par rapport à ak foire yi passé ndax man 2017 laa dugg ci association mais ma ci duggee ba léegi dama daan ñëw foire di visite Tivaouane mais par rapport à li ma gis ren moom wax dëgg yàlla am na avancement bu baax liggéey bi liggéey baa ngi avancé waa ñoom daal ñu ngi góorgóorlu daal pour fexe ak gën a améliorer pour dab gaay waaw comme ni tur ni ni ko tur bi woote woo daal ñu ngi jéem a góorgóorlu daal pour gën a améliorer daal. macha allah tey sa lan moo la poussé réellement ngir nga exposé ci ci foire ak foire bi lan temps bi nga xam ne ak nga xam ne defagum nga ko lan nga fi jàngate waaw ni ma li ma gën a poussé mooy comme ni ma ko waxee sànq rek gën a yokk bëgg gën a yokk expérience gën a yokk xam-xam comme fi ma nekk daanaka man rek maa fa nekk bëgg ñëw tamit indi li ma yor samay sujet bu ma ñëwee xool comparé ak li fi nekk xool lan laa yokk ci liggéey bi waaw léegi li ma li ma gis mooy mooy rafetlu ko rek wax dëgg yàlla di wax ni gars yi macha allah seen xol yaatu na élève éleveurs yi daal xam naa daal li ñuy woote woo li may gis gars yi di ko wax ci réseaux sociaux daal boo ñëwee fekk leen fii dañ koy dund waaw dañ koy dund macha allah waaw nga xam ne moom nga ñu jeune mal bi kii kii la teg teg noir bi doomu sëtu benn sëtu macha allah bu Pa Mansour Mbodj moo ko jur Salim Tola ko tuddee. beneen jeune mal bi bu weex bi benn doomu gouverneur la bu Talla Malika waaw ah, moom moo ko jur waa Malika ñu koy nuyu au passage nit ku baax macha allah doomu gouverneur euh, est-ce que pare nga pour dugal xar ci concours bi. non ren moom ñëwuma indi ko pour indi concours damaa. Ah, da ngay dawul nag dama xar ëpp. <laughs> damaa ñëw rek pour liggéey pour gën a xool. dama bëgg incha allah beneen édition bu mu ñëwee ma xam lan laay indiwaat incha allah bu ko defee bu mu ñëwee ma bëgg dugal catégorie yëpp incha allah bu ñu yàlla may ñu fekke naa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo fàttali ñu fu mu nekk ak ku fa bëgg a jar fan ngay jaar ak yan ak contact ngay ma ba bergerie bi mu ngi nekk euh, département de Tivaouane arrondissement de Pambal dëkk bu ñuy naan xàkk waaw ma tuddee ko sama maam mu sonn lool ci xar mi maam soxna tin waaw moom laa delloo jukkal tuddee ko tur bi waaw di wax ne ku ma bëgg contacter man tamit maa ngi Dakar Dakar laa nekk waaw commerce 400 laa fa maa ngi Grand Dakar waaw ku ma bëgg a contacter rek boo boo ma woowee 77 415 40 20 wala 76 840 02 80 07 82 waaw mooy samay numéro waaw. waaw incha allah macha allah jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum mbokk yi ba léegi rek euh, ñu des ak yéen fii ci foiru Reptel euh, taxaw ak un grand champion borom bergerie Diofior xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo rek présenté wax moom mooy kan sëñ bi ziar nañ la. Euh, maa ngi leen delloo ziar bu baax a baax man maa ngi tudd ba Badou Sarr maa ngi dëkk fi ñuy wax Diofior dans la région de Fatick département Fatick man maa yore bergerie Diofior waaw ma ñëwoon ci foiru Reptel bi. pour euh, exposé ay produits yi ma jot a liggéey daal. macha allah mu nekk lu am solo nga jógee ba Fatick ñëw Tivaouane exposé fi lan moo waral lool. waaw euh, man nag euh, fii laay liggéeyee maanaam fii laay jàngale bi ma ñëwee ba fii te auparavant dama doon yar ay xar bi ma ñëwee ba fii nag ñi may àndal ku mel ni ñoom Moustapha Senghor ku mel ni ñoom Samba Sey ku mel ni ñoom Ali Diop di liggéey Senelec ku mel ni ñoom Pape Diop. Ibadou euh, amur biñ ma gën a dolli si xar yi daal ma ne foo ma jéem a investiraat léegi ma am sama benn copain boo xam ne Maslo la tudd d'ailleurs tuddee naa ko fi benn mbote sax Maslo euh, mu gën ma encouragé dama ma da war a def parce que yow li ngay xont ak ni ngay jënd xont war nga mun a def doon champion. gën ma encouragé moo tax ma jéem a ñëw si foire bi. macha allah ma nekk lu am solo nga ñëw fii tey fekk fi say mbokk say xarit say xaritu éleveur gis ñu exposé ñoom tamit euh, nan nga jàngatee exposition bi nga xam tey waa Tivaouane def waaw waaw que première fois bi biñ ko njëkkoon def fii man bokkuma woon euh, ñëwoon naa doon visiteur nii chaque jour nag dama doon ñëw di xool man leen incha allah si kattanu yàlla man bëgg naa bu ñuy exposé waat damay bokk. waaw damay bokk nag ma yàlla dimbali ma nag ma ñëw sama kër fi ma dëkk am benn booy bu bu bu teggine booy bu yaru. bu disponible ñu koy tuddee ñu koy wax Mor Diène Guèye Mor Diène euh, ma ñëw mu ne ma mën nga indi xar yi ma jëlee xar yi joof yoor indi leen fii mu ma leen toppatoo bu ma fa nekkee bu ma fa nekkul mu day def léppam lépp day def alalam la siy def maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Mor Diène Guèye tey nii dafa nekkul moo tax ñëwul sax mais normalement lii yëpp moo ko waroon gérer. mais vraiment moom tamit dama koy remercier bu baax. waaw mm. macha allah mu nekk lu am solo tey ku bëggoon ñëw bergerie Diofior yan contact lay jaar ak ak maal bi nga xam ne indi nga ko est que mën nga ñu ko présenter. waaw waaw euh, maal bi nga xam ne moom laa indi tey mooy bi ñuy wax professeur. waaw professeur la tudd mooy maal bi waaw waaw mooy professeur gisoo mooy jàngal gaay yi boo déggee professeur mooy mu kuy jàngale mooy jàngal gaay boo duggee si wet gisoo ay doom ay doom lay def moom laa tuddee euh, professeur sama benn xarit nag maas moo moo ma ko jox moom mu ngi sant Birahim la nekk côté ndey euh, côté baay muy Biram Njéeme Biram Njéeme waaw waaw kon moo tax muy def ay cuulul waaw mu ngi noonu mu ngi noonu ay cuulul rek lay jur nag ay cuulul rek waaw boo gisee femelle bi nag tamit maa ngi ko euh, jënde woon ci sama benn xarit boo xam ne ñoo nekkandoo woon université euh, ma héberger ko bu ma demee ba bëgg xar yi mu ne ma loolu du jafe jënd naa xar bi ba mu ba mu tëbu mosuma ko gis mu ne ma léegi nag moo tax ma tuddee ko yaayam gisoo tur bi Salinga la tudd Salinga nag ma ne ko léegi tànk xar bi nag comme yow laa ko say doom yëpp dama leen di tuddee doom dama leen tuddee xar yàlla defal ma doon tamit doomam yu góor yëpp ku ci nekk am nga si tur jigéen ñi tamit commencé na ko waaw yàlla may na ko nag mu am ay bant yu xaw a takku du ma leen lim mais macha allah yàlla kii na ko daal te ñëpp tekki nañ. macha allah macha allah yàlla yàlla nag. maa ko tuddee sama benn xarit maa ko mag mais sama xarit la am même temps ñu tuddee Mouhamed la tudd nag mais ñu ñëw ko siwal too avec tudd na Ngamou Sarr Ngamou Ngamou mooy kaan maanaam koo xam ne ku nëbbu daal maanaam comme jaaru maktum moo tax ñu tuddee ko après euh, am na rakam si ngi yaam am na dijee am na bijee am na yoo xam ne sax ñëwuñu waaw mais yi si des daal moom lañ indi fii daal waaw ak cuul yu ndaw yi nga xam ne dañuy doog a juddu daal. macha allah mu nekk lu am solo xam naa dañ lay bàyyi rek comme que waxtu yu may la ko nga tàggatoo. jërëjëf euh, yéen maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax yaa waa TV Ladoum vraiment seen liggéey rafet na seen liggéey rafet na li ngeen di def ñëpp a koy gis ñëpp a koy teg bët vraiment ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax di te di leen ñaanal affaire bi jëm kanam incha allah jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. gàddu ni nga mel wa sa jaar jaar I said love and baby mooy tere bi bëggal sama